الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الأرباب ومخدر الأسباب وجائل خلقه من التراب والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñuy seetaan fii ci Sahel Network TV ci Banjul في ci بي bi لين ngi leen di wax baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam ñu ngi nuyu ñëpp kuy seetaan online bi rek ñu ngi lay bëggee di la ñaanal yàlla yàlla may nu weeru kooru jàmm. nekk fi nag suma mbokk suma xarit Alxaaji Essa Mbay nga xam ne tabaarakallaahu ñoo fi nekk ak yéen ci première fan ba ba ci tey juróomeelu fan bii ci talaata ñu fas yéene ànd ak yéen pour waxtaanu koor ñu ngi nuyu nag kilifa réew mi tabaarakallaahu sunu président ñu ngi koy nuyu bu baax. ak mboolem ku nekk ci gouvernement bi ñu ngi leen di nuyu muy président Mr Adama Barrow ak mboolem koo xam ne mu ngi ànd ak moom ci liggéey bi waaye yi ci nuyu bi mooy sunu maam imaam ratib Haji Thierno Moise nga xam ne tabaarakallaahu mboolem kuy imaam rek ci réew mi yóbbuwaale na la nuyu nañ leen bu baax ziyaara leen bu baax waaye xaasatan nuyu sunuy sëriñ yi nga xam ne tabaarakallaahu ñu nga ca Sénégal mooy jiital ko ci mboolem kuy njabootu moom Cheikh Seydil Hadji Malick Sy ba ca tey xalifa ba tey di Serigne Babacar man Mansour yàlla na yàlla yàggal ko fi mu ànd ak wér waaye nuyu suñu pàpp suñu xarit maam Ousmane Sy nga xam ne cër waa Gambie la nga xam ne nu ngi nuyu waa fédération bi yëpp ñi nekk ci Gambie ak ñi ne senegal ñooy ànd ak yéen fii ci waxtaanu koor ci mbiru lan mooy koor ak lan moo tax yàlla indi koor waaye koor bi mu ñëwee lan lay am résultat ban lay war a def ci ñun mm. loolu lañ fas yéene pour ànd ak nga xamne ne tabaarakallaahu li wax gaay rek kep ku ci bëgg xam dara rek wax deug yàlla bul fexe fexe ba tardé moy bu la ci ben bis raw koy déglu diko ko nga xamne lépp luñ la ci wax rek qala allah qala rasul ndax non la ko yàlla bëggé mo wax ñuy digle lu baax waaye di tere lu bon. waaye digle lu baax te jitu ci waaye tere lu bon it te di ko moytu. bil ma'rufi wa tanawna anil munkar kooku la ñu yàlla nattoo yal na yàlla may ñu si nag lépp loo xam ne luy njuumte la yàlla musal ñu si waaye lépp loo xam ne ndam la ci yàlla defal na ko ak mbooleem kuy wax ci réew mi sunu papa yeeg sunu mag yeeg ñi nga xam ne ñu ngi wax ci mbooleem média yi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal kon daal tey ci talaata ji moom it fas nañ yéene pour ñëw bu soobee yàlla ak waxtaan wi. ci jërëjëf sëñ Cheikh ci ubbi gu yaatu googu ubbi am solo googu noonu waaye xam naa dañoo delluwaat ci commercial bi ah yéembaane ñi nga xam ne ñoo jàpp ci programme bi. ba mun a sotti. Mm-hmm. bu defee suñ dellusiwaatee rek mu gën a yaatu. ñu continuer incha allah rabbi jërëjëf sëriñ Cheikh mhm. gannaaw bi ñu demee ci commercial yi ba pare ñu jël ci waat ci waxtaan wi lundi bi ñu fi ñëwee ñu ngi doon waxtaan ci mbiri yërmande mhm. ndax ñu ngi ci fukki fan yu njëkk yi te mhm. fukki fan yu njëkk yi moo umba yërmande waaye yaakaar naa ne yërmande yi ànd na ak muñ naka la ñoo yërëmantee ak naka la ñoo muñalantee ci biir weeri koor bi boo yërëmee nit ki war naa am loo ko mun a muñal bu mu ñëree nit ki it war naa am loo ko mun a yërëmal kon ñaari mbir yi naka la ci jullit bi di dundee ak moroomam ci biir weeri koor bi tabaarakallaahu mbokk yi ñuy seetaan ñu ñëwaat gannaaw bi ñu jàlle ci yébaane yi tabaarakallaahu li nga wax ni benn mënta dem ba sa morom hmm. ndax ke ci altine bi ñu ngi doon waxtaan ci yërëmande mooy yërëmante waaye nag yërëmante gi ñu ngi ko tibbee ci fukki fan yu njëkk yi yërmandi la mm-hmm. fukki fan yi njëkk yi moom téere yi wax nañ ne maanaam walla bind nañ ne ku ci génn àdduna sax mm-hmm. mooy yow yërëm nañ la yow maanaam yow am nga yërmande yàlla sunu borom subhanahu wa taala mooy fukki fan yu njëkk yi mm-hmm. yërmande nag ni nga ko waxee tabaarakallaahu foog mu ànd ak muñ ku tudd muñ nag tabaarakallaahu danga xam ne koor sax yàlla lim njëkk a exa jàngal jullit bi mooy na am muñ mooy na muñ hmm. ndax xam nga wéet ci sa néeg yow kenn kese hmm. sa fridge mu ngi tàkk yaa ngi fa dugal everything mu ngi ci hmm. biir fridge bi kenn gisul la nga tëj bunt bi fay làmp yi foofu xam nga boo muñul dëgg dëgg mën ngaa naan ndox te kenn du la gis soo soo muñul mën ngaa lekk dooma pom te kenn du la gis dëgg soo muñul. Mhm. mën ngaa lekk banaana mbaa nga lekk ci ndesitu lekk démb bi te kenn du la gis. dëgg foofu xolal foofu la ñuy xamee ni doomu aadama bi kon dëgg-dëgg. Mhm. mooy ndeke koor yàlla def ci def examen yoo xam ne pour nit ki mën a muñ. Mhm. si nga muñ googu nga muñ nag. wéet gisuloo kenn nga yëg ne yàllaa ngi lay gis nga muñ. ba ñàkk a def lépp lu tere. Mm-hmm. yàlla nee na kii foog ma garanti naa ko yërmande. Mm-hmm. kon muñ googu tey boo doon wax actualité tey jamono ji li xew xam nga jamono ji lu xew suma ma la ko laajoon loo may wax lan. coronavirus. coronavirus bi xew tey jamono xam nga mm-hmm. nattu la. nattu nag bu la dalee noo war a def. muñ dellu ci yàlla muñ. te dama ci jàng benn xadiisu qudsi yu boo xam ne yàlla moo ko wax yonent bi mm-hmm. yàlla moo wax ci boppam sallallahu alayhi wa sallam moo wax yonent bi ne ko maa min abdin nazalat bihi l baliya mm-hmm. amul benn jaam bu ñuy wàccee ci yow musiba mm-hmm. nga delloo ko ci man mooy maanaam nga wakkilu ci man yàlla nga delloo ko ci man muñ yàlla nee na loola nga tiit du la dal loola ngay jàq du la dal hmm. waaw et kon est-ce que ni nga gis gisi àdduna ni ñuy muñee coronavirus bi est-ce ak ni war a amee bokk na gis nga dafa jot weeru koor gis nga li muy jàngale hmm. xam nga problème la hmm. yàlla moom àdduna yàlla moom moom àdduna xam nga àdduna fan la ko yàlla def yàlla ne àdduna ak asamaan ak suuf ak àllaaxira ak yi nga xamul. Hmm. yàlla ne malaaka mi gën a xiiboon sama malaaka yi laa koy teg ci benn baaraamam. te mu ngi mel ni puso boo teg ci digg àll. kon yàllaa moom nit ñi yàlla moom adduna yàlla nag li muy jàngale pour ñu jël yàlla wan ko ne ko yow rek la. Hmm. weer koor wi. Hmm. yërëmanteeg yii yëpp xam nga problème la pour jël yàlla wax ko ne ko yow rek la. du kenn yow yow la. ñu jël corona bi hmm. wan yalla ne ko nattu la bo xamne yag nga wàccee ay nattu hmm. xam nga luma wax dembu gaay ci jàkk bu fekke nattu rek la yunt yalla musa xam nga ban at la judd Firawna dafa am technology man yi ñuy woowee comme jamono ma wax ci jamono technology yeeg gisaane kat yi listixaar kat yi def listixaar wax wax Firawna nako ren ki la folli dana juddou maanaam ki nar a folli sa nguur gi. Mhm. dana juddu xam nga buur boo toog nga ne ko ki la ki nar a folli sa nguur dana juddu fu mu jëm dootul lekk du naanati. xam nga nu muy def. Mhm. dajale gaa yëpp ne leen léegi dem leen ci àdduna bi jël mi ni militaire yëpp ne dem leen ci réew mi réew mi tout jigéen bu ëmb jël leen ko def ko garde vie mooy di ko di ko di ko di ko di ko garde. tënk ko benn place su amee doom bu dee góor rendi leen ko bu dee jigéen ngeen bokk mu dem. ku def loolu firaw na na. xam nga benn at mu ne ñaata junni lay de juróom-ñaar téeméeri junni. seven hundred thousand ay people la daan rey ba at mu ne. ay liir ay liir liir yu góor. Hmm. seven hundred thousand. at mu ne at mu ne. Hmm. paa yeeg maire yi def waxtaan ne ah bu ñu waxut ak président musiba am de. Hmm. mag ñaa ngi dee muy rey gune yi kon àdduna tukki. nuñ def dem waxtaan ak président président bi ne leen waaw léegi bu ma reyee two thousand and twenty bi danaa ba two thousand and twenty one Mm. Surayaate 2022 by 2023. gaa yi continue noonu léegi yàlla ne na mi war a ànd ak Moussa moom mu ngi juddu ci ak miñ baale. waaye Moussa moom pour ma wan la ne la yàlla corona bi duhut maanaam. soldaar bu ndaw la ci soldaaru yàlla yi mm-hmm. maanaam virus la lu bët mënta gis la mm-hmm. moom la wàccee ci àdduna nit ñi di kenn ku naan nangam génn fii gëma di yàllaak kenn ku ma gis nga loolu xam nga lu mu lay jàngal mm-hmm. firaaw na di rey di rey ba at mi muusa yaayam ëmb ko bi ko yaayam ëmbee am benn sage-femme boo xam ne xaritam la si maanaam masalan muy liggéey ci hôpitalu Banjul wala muy liggéey ci hôpitalu euh, Serekunda dem ci xaritu benn bakkanam la mu ne ko ah, man de yëg naa dara suma biir waaye day maa ngi lay may ñaan nga suturaal ma su ma waree am doom suma ma weer moo ci tolloo naa la woo nga rawle ma sama kër benn liggéeykat buy liggéey ci euh, euh, garde corps président bi mhm. gis sage-femme bi dugg ci kër gi mu dugg ba lijjanti ba xam ne dooma fa judd mhm. ñu neexal ko na ko waaye nag baalu moom nag comme bëkk néeg ñaareel wala ay lifin yi nettali lañu gën a man dem nag pour nettalil ko buur bi mu demee ba toog ci taabalu buur bi yàlla rocci làmmañ wi kanaa yàlla yor àdduna fekkere bi tax nit di wax eesa bët xef a gën a oyof nga mën koo yëkkati mhm. fekkere bi tax li koy doxal nooyi ngelaw a gën a li tax ngay mën a xëcc nooy di ñëw mhm. tànk bi di jóg di dem mhm. allahu subhanahu wa taala moom la yàlla rek la bés bu ci bis bu ci pere demal ci dee taxaw fii rek jege na. Mm-hmm. demal maanaam boo fa fekkee ku yàlla pere ci moom. Mm-hmm. tànk bi dootul jóg. bët bi dootul xool. bakkan bi dootul nooy. bët yi day gëmm wala mu xool ca kaw. yàlla fa jaar. Mm-hmm. yàlla moom moom moom àdduna. gis nga musaa ànd ak loolu yëpp yàlla dafa fexe ba Moussa yaroo ci biir kër na moo doon rey ay milliards milliards nit. yàlla ne ko ki tax ngay rey nit ñi. dana juddu ci at mi nga xam ne ci ngay rey doo ko mën a rey hmm. mu ñu daajal ko kees sànni ko ci géej gi firaw na amoon na doom boo xam ne dafa amoon feebaru ngaana hmm. feebaru ngaana gi nag docteur yi wax ko ne ko pour du continuer mu mën a wér da ngay wut benn piscine boo xam ne ndox mi ci géej gi lay jógee ko rigol bi ñu defal doomu Firawna muy sangu ci piscine piscine mooy swimming pool. waaw mooy swimming. swimming waaw. ni ngeen koy waxee yéen. gis nga moom. kees gañ daajal Moussa. Hmm. kees ga ca réewlu ba la dugg naan këlëb lëb lëb lëb këlëb lëb lëb ba ne ñu lëb ci biir piscine bi. Hmm. ci sangokaay bi. Hmm. doom ji gis ko woo papa ji papa ji ñëw xool ñu ne ah lii de luñ kaste la lii de nangam la ñu daj fekk fa muy liir. waaye boobu am na jabar boo xam ne musulman la jullit la. ku ñu wax Asiyatu Asiyatu bintu Masaayib. moo ko xool rek yàlla ne biñ dajjee kees gi. lu yëf yi yéex yéex ak lu muy gaaw gaaw sànni naa ko daraja wa alqaytu alayka mahabbatan minni moom liir waaw moom liir bi di Moussa. Mm. yàlla ne maa ko sànni ku ko gis bëgg ko. jabar dina ko waaw nañ jël kii mu doon sama doom. firaaw na ko kanaa yow nga am ci soxla. wax nañ ne bu fekkoo ne wax na waaw rek. Mm. firaaw nag lu mu bon bon ëllëg balaa muy dee dana tub dana dugg àjjana. Mm. waaw. ci liir bi muy Moussa. pour wan la ne la yàlla lu mu namm bu àdduna yëpp taxawoon di défendre naan ay nañ def nii nañ masque donte ci la bokk àdduna yëpp buñ ci àndoon bu ci yàlla àndul du sotti. loolu foog nit ñi dugal ko seen bopp gi dëgg la kon nga xam ne kon muñ googu ngay wax yàlla moo waxal boppam ci xadiisul kursi Musaa juddul ku folli na kan la. Firawna koko fa fole du musa musa waaw waaw mi ko fole fan la yaro ci keur Firawna. kër Firawna ku ko doon jox dépasse ndek ak reer. moom Firawna ak jabara ci këram. Hmm. ci la yaro di yaro ba musa def na ko fa toroxal boo xam ba legi téere ñu ne bokoy netali sax ku ca retan am tiyaaba. Hmm? kon nga yit ne yalla loolu lay baña a yalla yàlla mom aduna nañ ko ko ba nañ ko ko baxee ko fi deg dana fi jaar dem lu gudd gudd fan bés dana ñew ñu tëddal ko. xaar ko xaar leen ko mu ngi ñëw convoi beeg yii bés dina ñëw ñu ne xaar leen ñu génne ko ci margo bi. Mhm. yàlla moo doxalee noonu foog ñu am gëm-gëm bi nag wan yàlla na ko buur yéeg yépp nangu nañ ko dañuy am président dañuy am ay policier dañuy nangu loi bi loolu kenn du ko bañ waaye xam nga li xew. Mhm. mooy foog ñu wan yàlla ne ko bu nattu jógee ko ci kaw ñëw kenn moom ci dara. gis nga xa lii xadiisul xudsi yu la. Mhm. yonent bi maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa moom moo wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla nee na maa min abdin nasalat bihi baliyatan fa atazama biya ilaa aataytuhu qabla an yasalani lépp lu ma teg aw nit ci tiis ñu muñ ko yàlla ne balaañ maa ñaan ma jox leen lañ bëgg waaw oustaz ma ma ma ma dog la foofu ñu ngi wax ci mbiri muñ ñu ngi wax ci mbiri moomeel su ma ne moomeel li nga fi wax yëpp ci loxo yàlla la nekk. Mhm. nekkul ci loxo doomu aadama. Mhm. tey jii corona bi su nekkoon ci loxo doomu aadama. Mhm. ah yaakaar naa ne solution am na. waaye li laa mun a won ni lii du kenn yàlla la. àdduna yëpp ñoo tënku ci jamono bi ñu toll nii. àdduna yëpp a tënku. airport bi doxatu oto yi nañ daan dawee dawatuñ ko. xëy na fii Gambie sax waaye boo demee Sénégal. oto bu nekk région ba nga nekk doo fa génn. waa loolu ndax doomu aadama. am na sañ-sañ bi ndax yàlla rek moo am sañ-sañ bi li ma bëgg a wone foofu mooy. korona mhm. bi naka la ñoo mun a naka la naka la askan wi di mun a def ba mu jógee fi. Mhm. ok kër docteur ñëw nañ. Mhm. ak seen xelaat. ak seen yeddaange. def leen lii. bàyyi leen lii. pour yàlla musal leen ci. waaye ñun jullit yi. naka la ñu war a jëflante yàlla. Mhm. ba corona bi jógee fi. tabaarakallaahu yaakaar naa ne loolu moom buñ ko naree tontu yaakaar naa sax soo oytuwul time ba yëpp dana jeex. waaye danañ ci cof tuuti. Mhm. ñun jullit yeeg àdduna tuur mhm. wax naa la ko démb. mooy ko ku dul jullit tëdd ci lalu hôpital lu mu wax bu tay doon démb su ma delluwaatoon di dund maykal xaat waaw. ak Lamartin duñ jullit. dina traduire li li alxuraan bi wax ci different languages pour ñëpp mun koo njëriñoo pour ñëpp jëriñoo ko xam nga li nga laaj nii pour mu gaaw ci gàttal. Mm-hmm. ñun xamatuñ fu jëm. ndax yàlla mi nga xam ne moom moo bind ay jaamam moom ñëpp yónni yonent bi yónni ay yonent téeméeri junne yonent ak ñaar fukki junne yonent ak ñeent twenty four thousand ay personnes ay ay ay prophètes yàlla yónni leen. Aysa hmm. Muusa Hud yooyu yëpp mu yónni leen pour lan defar doomu aadama yi. Hmm. kon léegi nañ delluwaati yàlla. dëgg la. tontu Allah before you return to Allah. tontu Allah. before you return to Allah. est-ce te mooy return to Allah day ñëw. Hmm. bés dana ñëw bu la neexee bu ma neexee bu ma naqaree danaa return back dellu ci yàlla. kon dellu ci yàlla mooy lan alxuraan yàlla mii di wax ak yonent bi moo ne koon yi nag jaaxle naa ci ñoom lool yàlla ci boppam de mooy wax ak yonent bi na sa gars yi daal jaaxal bind naa safara waaye taxuñ de waaye gis naa ñuy ñoddee ko rek pour dugg biir te gis nga corona bi ngay gis nii xam nga lu lu lay mën a yonent bi mu ne mm. du jaam yi duñ dëñ di mooy yàlla xam nga mooy yàlla di ko lakkatoo maanaam mooy yàlla kenn du ko yëg kenn du ko gis. Mm-hmm. yàlla boobu understand na. xam ne ne ñoo yooyu ànd waaye léegi mooy yàlla yi dañ koy manifester. day te nag inna allaha laa yuhibbu jahra bi su'i yàlla bëggul kuy manifester lu ñaaw te léegi lu ñaaw yi foo dugg tey ci biir àdduna walla tey ci biir mbedd mi wala ci biir population bi lu dañ koy def ba pare di la wan léegi. human right la. léegi ku ne sa bopp sa bopp. suñ demee bay ñu ne ñu ngi jéem a yoonal. lu ñuy yoonal wote ci loi boo xam ne góor ak góor dañuy am droit pour sëy muy affaire du góor jigéen. ay lees yooyu yëpp dégg nga ko fi mu doon ay coow. Mm-hmm. yoo xam ne bi mu xewee ci aw nation mu xew ci aw yu xeet bi mu xewee ci guddi gi balaay bët a set yàlla wax na yonent bi ne ko génn dëkk bi. Mm-hmm. mu génn dëkk bi. mu dëkkërti suuf ti ba sabu ganaar yi waa asamaan di ko dégg mu tëwul leen tawu safara ñoom ñëpp ñu àll ko hmm? mooy yonent yàlla lóot hmm. waaw loolu bu ñu demee tey ba di ko légaliser di ko yoonal ñu am doole nitu diine yi ci boppam ànd ànd ñun ñëpp noppi mel ni alquran waxatoon démb wa man aarada an zikri fa inna lahu maishatan dankan wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama yàlla mu ne hmm. lima jox yonent bi su ngeen ko joxe gannaaw bes dana ñew aéroport fi leen dotul jóg. si jamono boobu lañ toll. fii la toll nañ ci bes dana ñew Sénégal gi na gëna jégué do fa mëna dugg bes dana ñew Sénégal moy restaurant restaurant kenn mëntu dugg bes nga ñew dëkk tu dëkk kenn du mëna dugg bes nga ñew ñëw étacologue ñu ne la dugg leen seen kër yi ta gambe ñun ñëpp ci bokk yam hmm. lolu xam nga lan la. Hmm. yàlla moo wax mu ne waman aarada képp ku dummóoyu an and zikri ci suma alquran di. Hmm. fa inna lahu ñeel tan maishatan dundu dankan bu xat dundu gu xat dundu go xamne ne sa xel du dal fi kuy wax ak ma yow yep ci yem suñ xel dalatul soy dox sa si jaww ji wóolootoo jaww ji xamoo ndax virus bi jaww ji dina ko xecc dóor lako suñ xel dalatul ci lepp buma dajje ak yow suma xel dalatul ci yow xam nga lolou lu koy indi moy yalla miñ wara jox yàlla mi war a jox face to face wan ko ne ko yawa yow lañ war a jaamu yow lañ war a ñaan ci yow lañ war a toroxlu ci yow lañ war a jox everything keneen ku door a am cër door a am cër. Hmm. loolu suñ ko deful ci nattu bii bu bii paasee beneen bu gën a garaaw boobu dana ñëwaat. ngir yàlla moo ko waxal boppam jaam yi féeg nekkuñ ci li ma bëgg ci nattoog ci tiisag. ci njàqare ci la ñuy dëkk ba ba ñuy dajeeg man loolu nag yàlla na fi yàlla musal. kon daal oustaz bu ma la déggee dafa mel ni feebar bi dafa yàlla daf ne woon boppam. dafa mel ni yàlla daf ne woon boppam ndax soo ko seetloo feebar yu bari ñëw nañ fi tubaab yi wala sax WHO yàlla dimbali na leen ba ñu am solution waaye bii ñu ngi laa woon naan vaccine bi balaa moo génn wala paj mi balaa moo génn ñii ne ñeenti weer ñii ne am na ñuy wax sax ne ata juróom-benni weer. waaye dafa mel ni yàlla daal mooy wane dayoom. ci ci ci ci jaamam yi. waaye dafa am lu ma ci jaaxal ban tey feebar bi am nañu ko dingaat ne politique la am na ñoo xam ne daal gëmuñ ko te dafa mel ni ñooñu bokk nañ ci ñuy lawal feebar bi ndax soo ñëwee ma war laa jox loxo nga war maa jox loxo ma ne la déedéet fi mu nekk nii dañ ne bu kenn joxante loxo man benn waaye def na ma ko mu ne ma yow loolu nga gëm. lii politique la feebar bi amut. loolu noo ko déggee wala noo ko jàngee. li may wax foofu tabaarakallaahu yéen ñuy ànd ak ñun ci suñu waxtaan wi nga xam ne tabaarakallaahu mooy Sahel Ndog TV nga xam ne tabaarakallaahu yéen ñi ñuy seetaan fii ci Sahel Ndog TV ñu ànd ak yéen ci waxtaanu koor waxtaanu koor bi nag eh, ni ko waxee rek ñu ngi ci yërmande waaye ci muñ muñ gi nag moo indi actualité bi xew mm-hmm. tabaarakallaahu nga toll ci sa laaj laaj ma am na ñoo xam ne gëmuñ ko am na ñu ko gëm am na ñoo xam ne nangam waaye daal ku ko gëm ku ko gëmul mm-hmm. yaa ci nattu bi dëgg ku ko gëm ak ki ko gëmul ñëpp ngi ci nattu bi. Mhm. xam nga lu tax. Mhm. mooy tey ki naan la amul sax moo gën a tiit ki gëm ni am na. Mhm. man démb wax naa ko ci jàkka ji bi ñu jullee ma ne feebar bu gën a garaaw corona mu ngi fi bu gën a garaaw korona mu ngi fi. ñu ne ma ban la ma ne leen mooy alxasuudu mooy iñaan. te tey boo gisee julli di avancement mënuñ ko dem yëpp añaan la. yooyu yëpp tey dem nañ ba fàtte yëpp ne corona kon ku ne corona amul te corona def lim defagum kon ku ne amul da ngay caaxaan rek. ku ne corona amul. Hmm. maanaam da ngay caaxaan. xam nga am naam amul. Hmm. day màtteem du màtte jar te jox sa loxo. Hmm. waaye man fi ma waxee ne. bu amee bu amul. ñun am na noo xam ne suñ ko doxalee xoon xam nga xaddis ba dafa dem ba ci yàgg xam nga lu yàlla wax. yàlla mu ne su ma wàccee nattu. du maanaam su ma wàccee nattu ci jaam nattu boobu ñu wakkillu ko ci mbindéef mooy comme hadis baa dem de wa ma min abdin nasalat bihi baliyatan fa atasama bi maxluqin su ma wàccee nattu mooy mu wàccee coronavirus ñu war a jël yàlla def ko muy suñu vaccin yàlla ne ñu ba ko ñu jël mbindéef ni ñun def ko muy suñu vaccin yàlla ne ma seetaan leen moo ñu dal ci corona bi nag. Hmm. coow li hmm. man ni ma gisee àdduna ak ni muy demee. Hmm. xam nga li ñu dal ci corona. mooy yàlla mi waroon a jiital. dem ba nga xam ne sunu lépp moom moo koy téel boppam konoon gis nga bu nit bu doon corona lu ni def la def ko muy pikir nii pompe. billaahi bu ñëwee pomp la ko hit yàlla si boppam moo lay gaayit ba doo ko am xam nga ñaata feebaree wàcc par timis bu timis di jot ñaata guddi. maanaam ñaata balaay wàcc. timis xam nga ñaata wàcc. kenn ku ne juróom-ñaar fukki balaa war na laa tiim pour wàcc sa kaw. juróom-ñaar fukki balaa. timis bu jot timis bu jot. juróom-ñaar fukki balaa nga jógee ci kaw asamaan pour dal gor kenn xamalul dara balaa bi feebar la balaa bi nattu la balaa bi gàcc la balaa bi feebar la balaa bi kaso la balaa bi nangam juróom-ñaar fukki balaa yu ku la ci muccal. fajal boo xëyee pour war a jóg. juróom-ñaar fukki balaa yuy wàccee xam nga yonent bi lu mu wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu dee am na lu mën a bëreek dogalu yàlla ba mu daan ko hmm. mooy ñaan ak sarax kon nañ dellu ci yàlla jullit yi suñ delloo ci yàlla rek ñaan yàlla wan ko ne ko jàngoro bi ñuy dégg su amee bu amul te am na am gim am nag moo la wan ne àdduna yëpp tëj na leen àdduna hmm. yëpp tëj gim ñu tëj nag ñun ñoo tëj suñ bopp. Hmm. li nu yàlla jox ne torsu bii dee leen ci ñiit jàpp leen ci dee leen ko doxalee dee leen ko waxee jullit du fen jullit du wor. jullit du dugg ci lu yoonam nekkul jullit du sol lu bon jullit du jëw jullit du nangam yooyu tey yëpp jullit yaa ko séddoo. Hmm. boo demee ci wàllu wax lu dul dëgg. jullit boo ci waxal ba mu gëñal la ne la billaahi wallaahi billaahi waxul dëgg. waaye bu ne la barki sama sëriñ Seydi Hadji Malick mm. wala barki sama sëriñ sëñ Touba wala lam la wax bu dee dana la rey dana la rey kon yow sëriñ bi gën a gëm ni ki yàlla mm. te waat yu bëri sa waat te la ngay waat dëgg la doo bëri wërsëg doo gudd fan te dee deexu mbetteel ngay dee hmm? loolu yàlla incha allah musal te li ngay waat li ngay waat bu dee dëgg la kon tabaarakallaahu ah yaakaar naa yéen ñuy topp daal pour daal feebar beeg ak muñ googu ñu doon wax yépp te muñ ñu ngi koy amee ñu ngi koy amee ci weeru koor nga mën a muñ am sa alal boo mën a utiliser tabaarakallaahu nga jox ko sa nawle loolu boo muñutoon doo ko man kon tabaarakallaahu daal. Ah, jërëjëf oustaz ah, waxtaan wi yaatu na xam naa heure bi moo ñu wax xoj rek. waa insha allahu rabbi su ëllëgee si àllarba gi buñ ñu incha allah xam naa fi dañoo continuer mhm. ndax am na yeneen laaj yoo xam ne mhm. war naa la koo laaj ci waari feebar bi mhm. ak jamono ak nit ñi waaye insha allahu rabbi comme que waxtu dab nañu ko defee rek ñu tàggoo ah, dellu gërëm borom kër gi ah, Aboubacar li ak soxnaam Oumy Bathily fii ci network TV ah fii ci Sahel network TV ci Banjul ci Gambia ah di gërëm suñ kilifa diine yi nag. rawatina ki nga xam ne tey jii moom la fi yàlla teg mu imaam ratib mu nekk fii ci Banjul li cëram la li ndamam la. di gërëm imaam Mouhamadou Tafsir Guèye. di gërëm it ahlu Tiwaawoon fédération ak jamiyatul tijaaniya fii hadratil malikiya di gërëm it suñuy wayjur ndax lii lépp kat ñoom la. waaye nag am na koo xam ne. mënuñ koo ñàkk gërëm. Mm-hmm. mooy Idrissa Mansa Dieng Cissokho. Mm-hmm. lii lépp moom la. Mm-hmm. moom moo ñu jokkale ak network TV bi. ba lii yëpp mun a am. di mag ci soxna si. di goro ci Aboubacar. kon fa tabaarakallaahu ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di ko dellu dellu di wax naan Ramadan Mubarak. baaraam kon sëñ Cheikh xanaa nga tëj rek ñu joxe dig daje ba ëllëg bu soobee yàlla. tàggoo bu dul tàggoo incha allahu rabbi ñu jox leen ba dije ba àllarba ni nga nuyu rek nuyu nañ ñëpp wax dëgg yàlla ndokkeel ñëpp ziyaara leen di wax rek euh, waa Pakaaw Njóogu yëpp ñoom it ñu ngi leen di nuyu biñ xëyee tey tabaarakallaahu am nañu xool online bi ci groupe ti groupe whatsapp boobu nga xam ne mooy Pakaaw Njóogu 100% youth ñu ngi leen di wax rek ne topp leen ñu ci online bi Sahel Network TV ñu fas yéene di ànd ak yéen ci waxtaanu koor waaye nag di ko defee fii ci studio bii ci Banjul ñu fas yéene di waxtaan ak yéen ak mboolem actualité bu xew rek man ak seen mbokk alxaaji Issa mbay nuyu borom kër gi tabaarakallaahu muy abu Aboubacar Bathily tabaarakallaahu soxnaam soxna umu uh, si uh, kii li ñu ndokkeel leen bu baax ak soxna Serigne idrisam mi ñu boole ak ñoom waaye nuyu kóolóoli gëm a jógee ñoom ñëpp waaye mboolem rek maa ngi nuyu mbooleem Gambians ñëpp maa ngi leen di nuyu di ñaan yàlla feebar bi yàlla na yàlla musal ni si yàlla teggi ko ñu dellu nañ meloon bi jaay Seydina Muhammad Cheikh Tidiane ak sa mbay beneen programme ci àllarba incha allah dinañ ñëwaat wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. suñu Cheikh xanaa ñu tàggoo ci sanitizer bi rek. ndax kër docteur lii la ñu digtal. ba subaam jàmm incha allah rabbi.